Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf buur Fatick fàqat na gouvernement ba remaniement bañ doon lam-lamee am na le soleil nañu démb la dogal ba daano juróom-ñaari ministre tëb nañu yeneen fukk ak ñaar yu yees dugg ci gouvernement bi remaniement bek la ko waral Abdoul Mbaye premier ministre bu Sénégal nañu ci yéenekaay bi moo di fexe ba teg gouvernement bopp dana xarañ général Pathé Seck journal bi nañu jël na place Mbaye Ndiaye ci intérieur Mankeur Ndiaye le soleil nañu jël na place Alioune Badara Cissé ci ministère affaires étrangères ñaari bopp yooyee Macky Sall kuttu ka ko kuttu di Macky Sall ma teg bopp ya xëy leen tim ci xët mu njëkk Le Quotidien journal bi nañu ABC remaniement maanaam remaniement boobee la ko indi yëpp journal bi di Le Quotidien xëy na ci dikk ak ñoon la nañu jàpp leen Macky Sall korise na gouvernement Abdoul Mbaye bu njëkk gouvernement boobee léegi la ci am ci ministre toll na ci fanweeri ministre Alioune Badara Cissé yéenekaay bi nañu dàq nañu ko ba ñu koy dàq ci gouvernement bi ma ngi ko fekk ci Arabie Saoudite ca Oudiadia foofee Ali Koto Ndiaye ak Ibrahima Sall mi ko ci moom jël ko teg ko ca présidence de la république muy toog nag di xaarandi conseil économique social et environnemental mata si dialogue abulo journal bi nañu dàq nañ leen wu bon Youssou Ndour ñaar ya mu gàddu di culture ak tourisme ñàkk na benn ba léegi tourisme dong moo ko desee Benno Siggil Sénégal journal bi di las nañu ñàkk nañu benn portefeuille ministériel Mankeur Ndiaye ak Pathé Seck yéene bi nañu ñaari spécialiste la yoo xam ne ku ca nekk fa ñu la fal dafa mel ne dañoo delloo mbattu ca ndaal Abdoulatif Coulibaly yéene la ñu def léegi porte-parole gouvernement Macky Sall bu bees boobee journal yi xëy tuddee Macky 2 ña ca yees journal bi nañu jàpp leen Pathé Seck la ak Thierno Alassane Sall Youssou gannaaw ba ñu nangoo ci moom culture bàyyi ko tourisme tourisme googee mu dese moom day mbili ji mi ngi xam ne ci observateur ne tourisme bu doon bubbulam bubbulam mu koy jàpp ba tey ci observateur kadduy Modou Diagne Fada bu Parti démocratique sénégalais joxe na xalaatam ci gouvernement Macky bi la mu gis moo di jële gi ñu jële Alioune Badara Cissé ak Mbaye Ndiaye ci gouvernement bi ay wor yu mat sëkk la wal fajir ne ko Macky Sall ñam woor dëgg moo di ay jege ñaaleem ay xaritam ñooñu la Macky Sall woor doom jëdi wal fajiri grand place ne ko Macky Sall la mu def romb nay woor Macky Sall wax waxet gi ñu doon toppee Abdoulaye Wade moom la fi def gouvernement bi am na juróom-ñaar yu ca jóge am na fukk ak ñaar yu yegg ca ñooñee ñaari jigéen ña nga ca ñañu dàq ci gouvernement bi di Alioune Badara Cissé Mbaye Ndiaye Ibrahima Sall ak Abdou Lool libération nañu ma wax leen la tax ñu tëb la mu jàpp moo di cantaakoon yi ñoo ko yóbbaale keneen ki di di abulo journal bi nañu ñaari nationalité yi mu amee ci réew mi mooy li tax ñu tëbal ko Alioune Badara Cissé moom la ko yóbbu moo di neexatul ak kii di Macky Sall stade yi nañu kookee ngeen gis Alaaji Malick Gakou tëbale nañu ko ci sport léegi ma nga ñu dénk wàllu commerce la ko tax a dem stade yi jàpp ne football bi la koko wuutu ca bopp ministre des sports mi ngi ci xët mu njëkk populaire Mbagnick Ndiaye la tudd direct info jàpp ne lool ku ko xool gis sport yamu rek ci football maa nga ca wàllu lamb ja ak wal fajir sport mi xëy ak ñun ci kàddu yu duubalees bàyyi triple S Balla Gaye 2 duubalees ne fa combat Eumeu ak Balla Gaye bu doon juróom la ñett yi taxaw nañu maanaam lu néew moo tee combat Eumeu Sène ak Balla Gaye taxaw ma taxaw ci lamb ji ab diir ànd ak sunu lamb mi xëy di laaj ndax Modou Lo gonek parcelle gi du mujj ci loxoy Gaston Mbengue la doon king de l'arène la tax journal bu mujj Gaston Mbengue moo ko organisé organisé Luc Nicolaï nekk ci jafe-jafe ndax kon Modou Lo du mujj ci loxoy Gaston Mbengue Gaston Mbengue moomee journal bi di sunu lamb nañu am nañu koy tuumal Gaston Mbengue Gaston Mbengue moomee journal bi di sunu lamb nañu am nañu koy tuumal ndax ci émission bii di jongante di am ca Télé Futurs Médias te Samba di ko fa def am nañu tuumal Gaston Mbengue ne mooy kiy wër di liggéey ak Serigne Luc Nicolaï di liggéey ak Serigne Aziz Ndiaye di liggéey ak Serigne Assane